sant bu baax ñi nga xam ne na noog ñoom ci résistance Benno Bokk Yaakaar ñu def liggéey bu rëy rëy taxawaay bu rëy ñu am koy ci askan wi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di sant askanu Touba ci ni nga xamee ne ak yiir nañ ñu ko ak ni nga xam ne dem nañ ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu déglu ñu euh, ñu tàmbali di leeral li nga xam ne mooy li ñoo ci sunu kanam li nga xam ne mooy li jàll ñëpp xam na ne résistance bii bi nga xamee ne lañ koy taxawal danoo yëkkati woon suñuy kàddu ci mitin ba defoon Mbàkke wane ne lii am ak nii liste bi doxee d'accord ñu ci mu doon lu leer nàññ ndax alerte lañ defoon gannaaw bi it ñu continuer di liggéey ci loolu ba yàlla dogal président toog ak ñun wax ak ñun ban toogee wax ak ñun bu ñëwee ci terrain bi danoo tàmbali liggéey bi ñan bokkal dëkk bi bokkal ñoom ñu jiite leen fi ñuy teet li ay ay galaskaloo ak ñeneen ak ñeneen ñu ni ñu nekk seen frère de parti ñu xam li nga xam ne poids bi am ci parti bi kenn jaarul fii ci permanence bi wane ne ah kon réeroo gi amoon sa diggante kilifa gi ah léegi nañ ñëw wax ak yow ñoom ñëpp ñu génne ñu ci lépp lu jëm ci activité parti bi waaye nag ñun comme que borom parti bi la ñuy waxal bi ñëwee ñun dañoo sóobu ci liggéey bi mu mel ne ñun sax ñooy tedd liste bi. fu ci mat dem ñu dem fa def na ñaari meeting benn bi fii lañ ko defee ci buntu sees ah, euh, bi ñëpp gis nañ ñi fi daje fekk defoon nañ ko ci mbakke avant ñuy gisante ak président defaat nañ beneen boo xam ne mbakk dañ koy defee ci Maam Jaara mii ca ban koy defit gis ñu ci Mbàkke ci terrain bi kenn koo xam ne mi ngi doon dox ci terrain bi ñu jàpp ko muy taw ñu jàppaat ko encore teewul def nañ ko ñëpp xam ne it bi fi Ousmane sonk ñëwee ci dëkk bi mennum sëñ Modou Bara Dolly ngay gis muy train ci dëkk bi benn responsable génn ci dëkk bi ñu rek ñoo doon dox ci dëkk bi di liggéey li ni liggéey dugg nañ ci dëkk bi dem nañ biir Touba dem nañ fépp bàyyi ñu fenn dem nañ ci sancaan yi fu ci nekk dem nañ foofu wax ak ñoom bañ ci génnee dem nañ ci tund yi nga xam ne lenn ci tund yi lenn ci tund yi nga xam ne ñoo wër dëkk bi dem nañ fa wax ak ñoom kon ñun li waroon a def def nañ ko ca kenn ku ne xam ne li dëkk bii euh, kuy gis xam ne guddi ak bëccëg ñi nga woon ci terrain bi noppaluñu 10 heures de matin lay commencé resoir ba 5 ci ngoon 5 ci woon ngoon ñu génn dem ci askan wi ba trois heures de matin ñu soog a wàcc loolu yaakaar naa ne bokkut ak ñi nga xam ne ñoom lañ defoon ñuy tedd si nga xam ne 5 heures la de ngontu ci ngoon ah ay 2 heures ña ngi seen kër di reer bala ñoo génnaat bala ñoo yeewaat ay 5 jot na ci ngoon kon ñun daanaka suñu taxawaay ba ci bisu élection yi yi ñuy def tournée dafa meloon ni ñun ñooy tedd liste bi foofu nag dafa am tuuti luñ fi leeral ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi woon ci liste ku mel ni Abdoulaye Gueye na Fatma ba ci mataar Diop ak ñeneen ñi ci nekk ñaar ñooñu lañ ci mën a cité ñëpp xam nañ ne ah nii nga xam ne ñun ci lan taxawoon ci liste bi di ko liggéey ci bokkuñu ci candidat yi bokkuñu ci list bi ci ñu waroon ñoo mën a jiital ñu bokk ci liste jiite liste bi ñëpp xam na ne nin doon di liggéey ci terrain bi kenn liggéey ko ci dëkk bi kenn lañ ñu doon tëkkaleel mooy seex Bara géey ci Cheikh Bara euh, géey dafa nekk ci liste faaw mu liggéey mënut a ñàkk moom def na la mu war a def kon buñ jàngatee foofu ñu gis ne ah même ba ci xab du mu nekk numéro 21 moom ci jëmi boppam kenn gisu ko ci biir terrain bi muy muy liggéey benn activité la def ca ba mu ko defee musubaa ci juru muy toog ci biir kër Sëñ bi woote fa ay nit ñuy tàccu ñii ñëpp da day mitin ci biir dëkk bi mu bokk ci li yàq ay élection ca loolu ñëpp mën nañ ko dano ñëpp xam nañ ko dénoncé nañ ko dénoncé ko loolu nag dama ciy teg joxe benn tegtal waxoon naa ko président waxoon naa ko dëkk bi neenaa naa leen bentoo lii ñuy def baaxul ca loolu alerté woon naa ko ca Mbàkke ñëpp di ko dégg président Macky Sall li nga war a def Touba lépp def nga ko Touba muy guddi muy bëccëg yaa ngi daw luñ wax nga ni Touba ay ñu bari sax di la mere ngir Touba ndax gañe woo ko ci lu ne nga ko fi def ñëpp xam na ne it sa diggante ak mu Mountakha ak bëgg gim la bëgg ak fim la teg lépp liggéey nga ko ci dëkk bii moo xam ay chantier la yoo xam ne bu ma koy lim du jeex président mag Sall ku ne mën na ko waxal dara waaye liggéeyul moom kenn mënu ko wax foo dem fekk fa ab liggéeyam kon loolu la ñuy doyee ab président waaye doxaleen wi mooy problème doxaleen woowu nag laay continuer di dénoncer fii munu mënuñu continuer di daw guddeeg bëccëg jël suñu lépp def ko ko lu ne ñu koy dégg lu ne ñu koy wax heure bu ne ñu jël ay nit tànn leen yoo xam ne ci seeni saal la ñuy toog jot na nag man jàpp naa ne bii yoon président li nga xam ne mooy wàllu politique am dana ko jël ci dëkk bi di ko bàyyi benn sëriñ politique du daayira politique du xilaafa politique lu ñuy waxtaanee la wàcc ci terrain bi addition yokk ko kon jot na ci day mu ngi doon diglu sëriñ si teg fi diw bul fi teg diw nan fi teg fi kii mais nan jàpp xel ne parti boppam la yor ci ñun ñi ci biir parti bi la nekk du kenn moo ko ci war di jëloo disons kii la wala kee la wala keneen la ñépp xam na ne fii ci famille Bara Dolly bi ma bokk ma mag ci biir kër ga ñëpp xam na ne bi président nekkee opposant Wade sëñ Bara Dolly moo fi jàkkaarloo woon ñëpp président Wade ne moom la fi teg mu dem ba gañeel ko mu nekk fii ne moom la fi teg ay sëriñ ñi ngi ko doon contre na ko lu tax ko fi ay nit ñi ngi leen doon ñu tax na lu tax ñu teg ko fi ba fi jógee ay doomam ñëw contrôler yor ko man ma bokk ci parti ah, APR doon seen mag ñëpp gis ma ci terrain bi ni may defee kon jot na il est temps président Macky Sall bu bëggee gagné dëkk bii nañ gëm dogalu suñu borom yàlla moo dogal Femi Bara Dolly ci wàllu politique ci Touba bu ñu doon wax ak may la ñu ne yàlla def jox na leen ko muy may googu sëñ Touba jox na leen ko nan nongul sëñ bi ni ñu koy nonguloo ñi nga xam ne nag politique la ñuy def nekk ci ab saal li nga xam ne ab politique li jàppee kub daayira politique doonut loo xam ne diw la moo gën a jege lii wala kii moo gën a jege lii sëñ Touba kenn gënu koo jege kenn ñun ñëpp ñooy bokk yem ci sëñ tubaa ak njabootam tàmbali fii yem ci kii fii ak njabootam adduna bépp ak njabootam lan loolu la jàngale loolu la wane jàpp naa ne à part aujourd'hui président Macky Sall dina jël ay responsabilité am ci lii parce que lii ñuy doxal ak lobby yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ànd kook ay kilifa diina ñu di ko doxal yaakaar naa ban ko daree def ba léegi jëlul résultat amu ci résultat lii nag signal la waaye signal la boo xam ne lim def ci réew mi lim liggéey ci réew mi mérite wut lii am ci dëkk bi ak lim def ci dëkk bi mu am waaye nag lépp ci doxeen wi la lépp ci nit ñin fi teg la président Macky Sall jaanam wàcc na ci liggéey gi nga xam ne mi ngi ko liggéey Sénégal jaanam wàcc na ci dëkk bii lim seq ak ñoom ñëpp xam nañ fi mu teg Serigne Mountakha Khadim Rasoul ñëpp xam nañ li muy def ci liggéey bii waaye ci politique kenn waru koo def li ba wax moom laay répété waat du xilaafa du daayira du aw ab tarixa politique politique la moom moo war a ay nitam na ko président yeneen yi doon defee président Diouf daan ko def président Wade doon ko def ñëpp xam nañ ay jal-jal amoon na bi fi sëñ Baara nekkee waaye président Wade da koo seere woon ne moom laa fi teg ci lii may wax Omar Sarr xam na ko keneen xam na ko kon ci tey jot na yaakaar naa ne lii nga xam ne ñu ngi ko doon liggéey ñun résistance dañuy continuer Maam Diarra Astou Ndiaye ñoom ak ñi ma ko àndaloon ñoom ñëpp dañuy kontaan continuer ci résistance boobu lu ne nag def nañ ko après audience bi dem nañ ci ay nit miine leen dem nañ ci ay nit ñi jox leen lu nekk pour ñu jéem a yàq li nga xam ne moom lay def résistance ma jàpp na sa camarade parti bu demee ba gindi ko ak kilifa parti bi bu ñëwee da nga cee war a jàpp ànd ak moom liggéey waaye doo ko wàññiku di ko beddiku ñu nag topp ñu ci ginnaaw personne ñun ci suñu jëmmi boppam danoo ànd di liggéey ci parti bi yàlla mi nga xam ne def na xam nañ ne li ñu bopp a def lépp defoon nañ ko waaye yàlla ñëw na akub dogalam ak ñoo xam ne liggéeyuñu ñoo ñooy liggéeyu nag yaakaar naa ne heure bii ñu toll président dana jël ay engagement ndax am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir terrain bi doon daw ak di dem ak di ñëw dañ doon soyee liggéeyuñu loolu ñëpp xam nañ ko à part aujourd'hui it waxoon naa leen ko ci signal ci Mbacké nee naa leen woon am na ñoo xam ne ñu ngi leen jëli di ñëw ca ñoom ñëwuñu mbir nag boo demee di jëli keneen di ñëw di ci daj lu ne danga nga koo war a daj ci sa waa parti yi nga xam ne ñoom ñu bokk parti moo gën nga dem di jëli ñeneen ñeneen ñoo ñooy am na ci ñu doon soyee parce que danoo ñëw jël seen i moyens ba pare wàññi ko ñoom ci seen jëmi boppam teewul ci kaw ñuy xam secret ba pare waxoon naa leen ko wàññi ko nekk fa nekkaatoon kon politique dañ koy bàyyi ñu ñi dëkk bi président jëlee say engagement nga ne kii laa fi teg kum neex ak kum naqari kii la kookee nga jël ko tàmbali ko à part aujourd'hui muy liggéey jëm 2024 lii mooy li nga xam ne danaa ko leeral li nga xam ne nag am na vraiment métet la aw mbir la moo xam ne président yellowu ko président li nga def ci dëkk bii ci réew mi def ko ci Touba gi ñu bari di la mere ngir Touba ci teewul nga continuer da ko def ngir jëmbi sëñ bi ak en tant que président de la république loolee moom xam naa si jikko danga koy continuer waaye nag il est temps wàllu politique nga jël ko ak sa méthode bopp di ko doxal ak sa wàllu bopp bañ cee déglooti nii ab sëriñ ni kenn ni kenn parce que sa mbirum bopp la sa parti la sa parti nag yaa war a tànn ñi ngi fi war a teg à tey jii ki defet bii tey jii nga war a jéema xool kan nga fi teg nga jox ñu ko man de li may wax waxaat la ma waxoon laay waxaat mennu man ci dëkk bii nga gis ne ma man ci sama jëmmi boppam tey buñ ma fi tegoon suba suba suba engagé naa ne bala ñuy egg fi jëm ci ay séance war nañ koo mën a gagné parce que eng engagé bu dee engagé ak maslaa ak social xaaruma ci président xaaruma ci waxtu ndax ñëpp gis na social bi may def ci dëkk bi ñëpp xam na ne lu nit nekk maa ngi ci bokk nekk kon jàpp nañ ne politique loolu tax ñuy wax maa ngi leen di sant sant ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndaloon ñëpp parce que tey bis la boo xam ne am na naqar ndax jëf ji nga xam ne président mi ngi ko def ci dëkk bi du teggi ko waxtu ne ca mënut a fexe ba am fi résultat waaye nag ci doxeen yi la ak defeen yi ak ñin fi tek loolu nag jàpp naa ne à ah, à part bi dana ci jël ay engagement am maa ngi daal li ma koy wax président de la république la li ma ko waxit am na digganteem ak sëñ bi la ko war moom ma nga ca leer na ma ne président du ci du ci jëg wenn waxtu waaye nag côté politique bi ak sëriñ yi di ko nax ci politique ak ñii nga xam ne ay lobby politique ci la ñuy dox ak ña ca kaw ña ci kaw ànd ak ñoom duñ def dëgg duñ wax dëgg kuñ yëkkati wuñ kuñ tudd ñu xeex ko muy entourage bi loolu yaakaar naa président dana jël ci entourage am ay ay ay méthode waaye dana jël ci ñi nga xam ne ñooy dëkk bi ay méthode parce que dëkk bii di Sénégal buñ bàyyee ba kàccoor yi ak saay-saay yi yi yilif Sénégal wallahi la sim bisa ngi ñëw boo xam ne moom mi leen ko bu fekkee ci moom lañ ko jëlee moom ci boppam sax ay nit ñi duñ ko ko baal ba ilaa yu mi diini ndax ñoom ci seen jëmmi boppam ay tàccoor lan fitna lan bëgg ci réew mi ci ay nit lan yoo xam ne ni ci dëgg-dëgg bu leen Sénégal yaakaaree euh, ah fan war a jëm wala fan war a egg du ñoom ñooy liggéey Sénégal ñu mayu yi loolu ñun ñu dox ci terrain bi guddi ak bëccëg di daw guddi ak bëccëg tasuñu kenn gisuñu kenn du ci bisu campagne bi bu ni ñu tëjee campagne bi kenn koo xam ne jàkkaarloo nag moom ci biir terrain bi amut kon kay muy ñu mayoo ñii toog nañ seen i kër ñii def nañ seen i lobby ñii dem nañ ci kër sëñ Tuubaa ga def fa am ndaje pour yàq élection yi loolu lépp am na fi dafa bari lu ci nekk loo xam ne bu ñu ko doon wax fii ba suba jeex du jeex danoo jël moyens yi jëfandiku ñu ci liñ ci war a jëfandiku liggéey ñu ci liñ ci liggéey ñu terrain bi am na ci ñoo xam ne buñ génnee ci biti sax mën na loo wax ne ñoom ci seen jëmm dañuy ruy dañuy ruy nit nag bu génnee ci biti ruy kooku mënta dem ci terrain loolu wax bu leer naa ñi la am na ci façon nit yoo xam ne seen deq yii ñu la yor bu ñu génnee ci biti day ruy kon kooku du liggéeyal kenn ci ab saalam lay dox. bu wér man la war a tànn ma jiite département bi parce que li am solo lenn la mooy ni ma engagé ak élection yii li ma ci prouvé ak ni ma mel ne maay tedd liste def ko. ca même bu doon indi ak wilaaya ci Touba sax daan ne sëñ Touba wilaayam fii la toll fii la egg war na noo xam ne ab cër bu ne sëñ ko jox kon wàllu politique famille Bara Dolly la ko denc ci Touba yooyu ñun gagné nañ élection yi am nañ majorité à l'Assemblée nationale xëy na nag war na noo defaraat suñu toogaay ba ñoom liñ am ci ay député ñun xool nan la ñuy liggéeyaate ak lan la ñuy def waaye yooyu moom weesu nañ ko mooy résultat yi moom joxe na lu leer nañ ñi eh, ca yaakaar naa ne buñ continuer sayto encore day gën a leer dana ëpp sax li wax kon kooku moom amu ci lu may wax